moom rek la mooy góor 45 ans boo ko amee jeexal nga doom moom dootuma ko amati loolu metti na metti na trop tas nañ sama yaakaar bi. ak lu mu jotee moom daal bu xamul ne woon day dee ndax moom dakaa doxee ci gannaaw rek jël xottu butéel daal di daal dagg siddit bi rek jëmale ko ci ginnaaw rek rey bu ñaaw sax. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy sibul fii ci people 221 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax a baax. Euh, tey nag ñu am naqar ak tiis muy sunu benn frère di suñu jeune boo xam ne ah yàlla dafa dogal ñu jël bakkanam ci réseaux sociaux lañ ko yëg people 221 nag li may wax rek chaque jour du jëlee ci dégg na ak foog na day dox ak tànkam ñëw ci famille ki nga xamante ni mooy euh, famille xale bu góor bi fa seenee waxtaan ak moom ñu ngi nii ak ay njabootam dañ leen di bàyyi ñu nuyoo ñu laaj leen naka la mbir mu demee yaay booy ñu ngi leen nuyu. waaw ah, ñu ngi leen di fay. Ah, ok. tey xale bi dem mooy kan. Ah, sama sët la maa jur yaayam maa ko yar. Mhm. sama sët la maa jur yaayam. yaayam moo toog noonu mooy sama taaw. Mhm. Mauritanie lay liggéey. ba muy dem di liggéey foofu. mu ngi naam mu ngi feral xale bi at ak juróom benni weer. mu yëkkati ko jox ma ko. maa ko yor ni ba mu am 24 ans. am na 24 ans. Mm-hmm. mbir mi naka la demee parce que dañ ko dégg ci réseaux sociaux yi ñii di wax lii ñii di wax leen ñu nañ ñëw ci seen bëgg a xam naka la mbir mi demee. Mm, ah waaw wax dëgg yàlla nun moom jullit lañ ñu delloo lépp ci loxo yàlla rek man moom léegi dafa tàng sama pied bi ci gannaaw damaa génnee matalaa teg fa tànk tàngaay di féexlu ma dal di jël njëgeen ay tëdd tuuti fi ma tegee sama bopp bii rek. rek euh, benn xale bu góor moroomam jóge fële ak waaxu bu tàng tiim ci sama bopp bi naan ana yaay Ibrahima ana yaay Ibrahima ma ne ko maa ngi nii mu ne ma Ibrahima rey nañ ko rek mu ne waroon dem am na xale yi nekkoon foofu ci wetu moto yi ma ne ko jàpp leen jàpp leen rek xale yi jàpp ko ma ne ko indi leen ko fii nee na ma Ibrahima rey nañ ko rey nañ ko daw na kay nañ ñëw mu ñëw nag bañ ko jàppee mu ñëw ma ne ko danga may wax fuñ ko reyee ak nuñ ko reyee mu ne ma fii Daar Rahman lañ ko reyee kaay ma wan la fa nit police sax mu nga fa ma ne ko Ibrahima ma ne ah loolu moom yéeme na ah man tamit bi ma jógee sax damaa daanu nit ñi di ma yëkkati en tant que tension dañoo bari léegi a ah, waaye sama fit tamit may naa pour daal ma dem egg fa ma jël kalandoo ma jëlee kalaandoo na ma dem ba egg quartier yooyu day am ndox sax koñ yooyu yëpp day am ndox kalandoo bi am fu mu yem may jéggi ndox yi di dem ba ci quartier boobu ñu ko faate ah ba ma demee nag fekk naa fa ay mbooloo yu bëri bëri bëri fekk fa ay polise waaw ñu ne fa lay ci pied bee la toogoon kooku da a doxee jam gannaaw jam ko ah ci biir kër gi nag ba mu ko jamee deewewul foofu nee nañ dafa daw rek dem ba ci dugg ci kër gi rek daanu fa la ko yàlla jëlee bokk na ah ma ñëw ñu ne ma kii mënoo ko gis maire policier yi ñu ne ma demal mënoo ko gis waaw lii laa xamee ne moom kii moom génn na àddina déggal waaw. ki jël bokkanam xam ngeen ko. waaw léegi xam naa ki jël bokkanam ndax seen kër mu ngi fii ci ginnaaw ca keroog jooju moom xaw ma kan la waaye ba mu demee ba bët seet ba ay booru midi yooyu lañ ma wax kiri jamanka yi la dëkk kiri waa kër Thierno Bakary Diaw la ah ma de loolu lépp rek ci loxo yàlla rek. lan la ci moom xaritam la wala ko doon ànd ak moom xale yi moom du ñu ñàkk ànd. moom moom xale yi du ñu ñàkk ànd même ay xaritam léegi delloon nañ fi ay yére ay yére yérem yoo xamante ne benn xaritam nee na moom néegam la ko bàyyi woon en tant que nit ak xaritam comme kooku nu muy ñëwee fii si néegam nee na moom dafa jógee Tiwaawoon ba mu jógee Tiwaawoon nee na ba mu ñëwee fekk na euh, moom Ibrahima ak kooku ñu toog waaw ba ñu toogee léegi nag mu ne Ibrahima man indaale wu ma weccet nee na Ibrahima daal di dem jëndali ko moom xale bu góor bi jógee Tiwaawoon jëndal ko ndox jëndal ko leneen jox ko ko mu xéewul nee na nag Ibrahima mu ne ko man damay watu ji dafa defoon ko may rasta yu ndaw de garaati mu ne ko damay watu ji nee na Ibrahima dem na watu ba pare ñëw toog ci pied bi nee na ma ne ko man tamit maa ngi egg suñu kër su ma eggee sama suñu kër ma sangu ma ñëwaat ah nee allah taala muy ñëwaat daal. ñi ko fekkee daal nee nañ moom xale bu góor bi ak lu mu jotee moom daal Ibou xamul ne woon day dee ndax moom dakaa doxee ci gannaaw rek jël xottu butéel daal di daal dagg siddit bi rek jëmale ko ci ginnaaw rek rey bu ñaaw sax kii jàkkaarloowuñ dakaa bett yàllaa xam nag comme dakaa bett nag man tamit am na taay yi passé ni léegi mot ñaari weer wala weer ak ñaar fukki fan am na ñu mu joteloo ba mu joteeg ñoom ñooñu kenn sax lay joteloo ba mu jotee kenn kooku daal di indi fii lu toll ak juróom-ñeenti xale yu góor ci guddi ay bandikay kenn xamul fu nit ñuy jóge ñuy ñëw daj palanteer bi seen néeg bi dajji sama palanteer di tëmbal ay xeeru birig yoo xam ne mu ngi nii ci vidéo yaa ngi fii ci téléphone bi ba ma xëyee dem naa ba polis ma déclaré loolu ma ne ko sama site la ñu joteel mais nit boo jotee moom atta da ngeen a jotee wala nga gaañ ko mbaam gaañul yow war ngaa dem hôpital mbaa nga dekkalaat waaye ba ñuy génn kër gi dañ ko ne moom dañ koy rey dañuy rey Ibrahima léegi nag ñëw naa déclaré a ah, comme noonu la nag dimbali leen ma sax ngeen téyel ma ko léegi tombége élection yi ñu doon woote fii nii euh, mairie ñu ne ma léegi yow da ngay dem comme ñu ngi ci élection ba ñu woote ba pare ndax élément yaa ngi foofu ci école yi ma toog ba bis bañ ma wax ma dem ba ma demee mu ne ma léegi yow lenn ngay def su Ibrahima nekkee ci kër gi da ngay ñëw woo si ñëw jàpp ko buñ ko jàppee nun dinañu wax tur ñi ko def man leen bindal na ma tur yaa ngi ni ci kayit ci guddi googu kii mooy yaayam moo ko jur ci biiram mu ñëw ah man tamit ma xam ne bu fekkente ne yaayam jóge na Mauritanie ma ñëw rek ma ne police tibb leen ko moom sama doom bi dina am lu mu xool ci man ndax mu denaan man damaa ñëw démb sama doom ngeen ñaa gis ñetti at ma jox ko sama yaay te benn bajjo la ci yaayam ñu tibb ko ah dina ma jàppee ne xëy na noonu laa mel ci doomam ma ne naa ko muñ loo yàlla ak yenente bi ma muñ ko yàlla nii nag faat nañ xaw ma nag waaye sama kër yi daj nañ ko a ah bu ñu dajee sa kër nag danga da ngay ñaaw njort rek ndax dëkk bi dafa am nu war a doxee neneen ndax ñëw dajji ay bunt ak i ay palanteer lu ma may sans toog di ñaan yàlla ak suñ Babacar si may ñaan tension bi yéeg na cardiaque bi yéeg ma jël téléphone yàlla moo ma ni foral téléphone ma jël téléphone bi ma ne allo police tourné leen ci côté moto yi xale yu góor yaa ngi foofu rek ñu ne waroon daal di dab waaye kuñ fi fekkoon ñu rey affaire yaa ngi ni boo gisee xeer yi ñu tëmba gisa palanteer bi birig ba ñu indaale bu béton bañ ko dëbbee palanteer bi biri palanteer bi dafa lem sama bunt sama palanteer noonu buntu néeg noonu ñaan rek ñu wax ci dikk bi dikk bi ñàngano torop kay dem moom dem na ba pare ndax bis boobu. Euh, boo ñu doon wax euh, nan la mel ak ci wàllu métier lan la doon liggéey. waaw wax dëgg yàlla de nan la mel ci wàllu métier man mi maamam dugaloon naa ko ministre ba mu demee ba dégg moom moo bay ndax xale yi. am na ñoo xam ne doo leen dugal métier moom moo bay ba mu baye moom fas saret rek moom fas ak saret rek moom fas moom dakaa bëgg fas ak saret lay yore képp ku xam Ibrahima xam na ni fas ak saret lay yore day dem luyee saret xam nga saret dañ koy luyee ci fooraa gi mu jënde ngooñ su jëndee ngooñ dem jaay ba géejawaay waaw bu ñëwee wàññi lu mu am waaw fa ñuy ferkante nag man duma fa dem te xaw ma waaye xale yu góor moom xam nga ni fokk ñu am seen garam place bopp fu ñuy tase waaw. mu nekkoon sa sët nga dëkkoon ak moom yar ko def ci moom lu bari tey nga xëy toog ci kër gi gisatoo ko lan la mën a def ci yow. ah yow gis nga kër gi ni nga ko fekkee situation bu métti sax xanaa dafa fekk kay jullit moom euh, yàlla day fees ci sa xol rek <laughs> waaye xam nga ni moo sin metti na ba ci kanamu yàlla fu métti di yem métti na metti na torop ndax sama sët ma yore ko depuis mu am. at ak juróom benn weer yaayam nekk Mauritanie tey su ma sañoon yaayam bu ñëwee day yëkkati ci poosam jox yaayam bu yaayam di ñibbi moom benn bajju la ci yaayam benn bajju ci yaayam te yaayam tamit bu sañoon doomam day toog ba njëriñ ko waaye du demee nii de neexul de waaye nag yàlla la neexul waaye yàlla la. gars yi comme ni ngeen ko waxee rek ñu ngi nii ak ay frères ak ay xaritam yi nga xam ne ñoom lay àndal fa seen seq ñoom waxtaan laaj leen frère ñu ngi di leen jaale. Ah, ñu ngi lay sigil ndigaale na lay sigil sa wàll. dem lan la ci yow. xarit la si ñun xarit la si ñu bokk jàmm gën bokk benn gox mu doon nit ku baax nag doon sampiyon doon bañkat bañkat la waaw boo déggee ma ne la bañkat la maanaam alal du ko booleek doomu aadama ba ndogal gi si ki mu tegu si kawam. si loxo ki mu jaar mën naa ne ñoom ñaar ñooy toog suba ngoon waaw ñooy toog suba ñoo bokk lépp lu ñuy def ba si combat ñuy dem ñoom ñaar ay ànd kon tey jii nii mën nañ ne njuumte rek waaw ndax ki ko def tey yéenewu ko loolu amaana ndogal suñ boroom moom bu jaaree si loxo doomu aadama day demee neneen ñun dañ koy ñaanal fi mu nekk gënal ko fuuf fii mu jógee. ndax maa ngi fàttaliku si semaine bii ñu mujj jógee maa ngi juge tëli jàmm gën su ma jugul moo kii ñoo ak yeneen booy ma tase moom noonu si tëli mu ngi jënd reer si mayga bi jënd reer ñëw ne ma am ma ne ko noo baax na mu forcé ma ma ne ko baax na mu woom ma ñëw mu yëkkati 1000 francs ne ma jëla fii téeméer ma bañ ko gàntal dem dugg si boutique bi jënd caakare soo 200 ñëw di ko jox weccat mu ne ma jëlal maa la may ma ñëw na ko coow jubul reer naa ba pare mu ne ma joxal sa mag wee téeméer benn booy boo xam maa ngi moom ànd suba ak mooy ma yëkkati boobu téeméer yi jox ko ne ko moo la ko jox mu ne ma ah saare mooy loolu moom champion la dama kaa gëj a gis sax ma ne ko pourtant mu ngi fii ñun nag donte métti na tamit te dina am lu ñu manqué si suñ benn côté moom dem na mais kee tamit tëdd na tamit si ay naqar ndax bu sañoon du def lii. waaw ndax mun naa ne ñoom ñaar ñëpp mag lañ si man kee mag la si man ñu bokk gox kee mag la si man mun naa ne papaam moo takk sama magu yaay papaam raxu papaam mun naa ne moo takk sama magu yaay kiñ jàpp. mais mu mel ni dama dégg ci maamam muy wax ni dafa am benn règlement de compte boo xam ni daf ci amoon parce que amoon na ay jamono gars yi amoon na ñu defoon descente fii ñëw def ki xam nga embarqué kër gi yàq ko yooyu noonu ko règlement de contre boo ko déggee daanaka mën nañ ne ñaari secteur la mais règlement de contre du jóge si ñaar ñooy ànd suba ndax ñoom ñaar ñooy ànd lu si waay wax rek day juum am na vidéo yoo xam ne chaque jour ñoom ñaaray toog waaw donte métti na nag tiis buy doogaa ñëw ku nekkay wax di nga dégg façon wax ju ak fu muy jógee ndax ñëpp yamuñu maire bi nag ñu dañ koy masaw bu baax a baax amaana règlement de compte boobu mën na doon feneen ak feneen doon leneen ñoom ñu sekk ak ñeneen mais du ñoom seen biir ba jour bu kalaatment bi di am ñoom ñaaro toog di waxtaan comme mun nañ ne erreur la diggante dix neuf heures ak vingt une heures yàggut ñoom ñaar ñu toog si ndogal am fa dañuy sent bu baax di ñaanal kee xolu muñ moom ñu koy ñaanal yàlla yeesal njéegal si kawam waaw. Euh, kañ nga ko mujjee gis. non Ibou ma nag moom guddeeg bëccëg ñoo doon nekk suba ngoon. billaahi mais dina torop nag. billaahi mais jàmm gan xama rek. fii daa bëri ay naafeq quoi dafa bëri ay seytaane yoo xam ne dañuy gis loo xamante ne nii mu ngi am te amagul ñu dëgg si seen tànk baay ba mu am ba jàll ku nekk di door a ubbi sa gémmiñ di wax ñoom ñaar bi ñuy coow am na ñu ko fekkee ma loolu bu ma fekkoon si jour bi man loolu bu ma fa fekkoon du am am na ñu ko fekkee mais dégg naa àttewuñu da nekk si koñ sax ay nit een la defoo leen dara barki Serigne Touba du ñu yàkkamte lu dul ngeen xeex bañ taxaw ñoom ñëpp koñ bi ñëpp génn taxaw di seetaan. mais Ibou moom ku ko xam xam ne champion la woon barki alxuraanu karim nekk bañkat alalam du ko booleeg doomu aadama ba booy bi lu muy wax nii rek man dama koy firndeel jour boobu noonu man maa ngi jugee buntu gaale sita sita mbër barki salaatul faare damaa jóge foofu di ñibbi suñu kër ay côté deux heures du matin ñu tase mu yëkkati 2000 man ak beneen booy bi ma àndal mu yëkkati ku nekk 1000 francs nañu am maa leen ko may jëndalaat ñu ku nekk reer billaay borom xool bu baax la yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana. coow yooyu noonu bëri na lu muy am ci secteur yi wala. non xam rek c'est que booy ñoo mënul muñalante tamit ku quoi ñun bu ñu bokkee koñ nekk benn dañoo war a muñalante di jéggale di jélale mais ndeysaan ay affaire yu ñàkk fu mooy am ñu koy jéem a topp ndeysaan ba leneen ak leneen am si te tey ndeysaan ki def lii nii bu sañoon du ko def ki tëdd fale tamit amaana ndeysaan gënaluñu quoi mais suñ borom da ko tuddoon tamit. mais xam nga rek yal na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ki nekk fële tamit yal na ko suñu borom teggil nattu yooyu noonu metti na torop mais yàlla lañuy ñuy bàyyi ak lépp rek billaahi. ok merci waaw yaay ñu ngi lay nuyu di la jaale li nga xam ne moom lañu bokk. waaw maa leen di fay. wallaay di leen delloo jaal. Mhm. ñun ñëpp ñëpp ñoo bokk naqar bi. metti na de metti na. waaye naa ndogalu yàlla rek mënu ma si dara yàlla bu ko neexoon moom mu yóbbu ma sax waaye xam naa lii la yàlla dogal mënu ma si dara. sa doom kañ nga ko gëj a gis. man moom dafa demoon Fuuta si tool yi di bay waaye bi mu ñibbisee nag man fekk toog naa ñetti at gisuma ko ma ñëw si vacances bi xam naa yàlla moo waxoon naa ñëw rek ba ma gis ko ma ñëw am moom fii weer. damaa dellu Mauritanie mutul fukki fan sax mu gaañu wallaahi ñu rey ko noonu te moom rek laa am wallaahi metti na de tey euh, sa doom moom rek nga am nga toog ay at gisoo ko tey nga xëy am loo doon yaakaar ci moom muy xëy di ko indi di xëy di liggéey di la jox tey nga xëy ñu jël ko lan la mën a def ah metti rek metti na de ah li nguur gi war na see wax de metti na xam nga nga jur sa doom bu góor nga yar ko ba mu màgg sama yaay moo ko yar ba mu màgg macha mu njool si kaw jëriñ ma noppal ma ñu rey ko ah metti na de waaye damay jàpp si yàlla rek metti na torop rey bi moom gouvernement bi war na see jóg war na see jóg de lii metti na de nga dem jur sa doom nàmpal ko ak nàmpal na mu méttee ak ëmb ba mu màgg ba war laa jëriñ rek ñu reyal la ko ah metti na de waaye nooy def jàpp si yàlla rek metti na de. tey nan nga ko yëgee bi affaire bi daam yow fi la la fekk. déedéet Mauritanie la ma fekk damaa toog ba 4 heures man guddi gi yëpp nelawu ma sax damaa mel ni ku feebar xam nga sa deret rek. deret dafa fort. buy jóge si yow danga koy yëg. ma ànd ak biir buy métti sama biir bi di daw di metti rek fajar gi nag ñu wax ma ko nag fekk nelawu ma ñaari fan nelawu ma dama mel ni ku ko yëg. ñu wax ma ko si fajar gi mu metti lool metti na de moom dama ko naroon yóbbaale Mauritanie sax xanaa dañuy wax ni bu demoon ba foofu amaana mu ñëwaat wala mu dee foofu sax waaye sama yoon bi dama ko naroon yóbbaale ndax sama yaay moo ngi naa ma yóbbaale ko bu demee foofu dina liggéey moom la doon jaay ngooñ ma ne ko waaw bu ma demee foofu tôlier yaa nga fa mécanicien yaa nga fa am na ñuy peinture ay oto bu demee dina fa am liggéey bu baax ba mu naa ma man kay dem même bu dee boobu amagul woon carte d'identité même bu dee yoonu Fuuta bi laay jaar sax dinaa naa lii Ah, mhm. tey mu doonoon ndaw doonoon koo xam ne amoon nga ci moom yaakaar ku ne xam ne àq njureel tey nga xëy ñu rey ko ban message ngay lancé ñi nga xam ne ñooy def ña ko ñooy def ko di ñaawteef yooyu. ah métti na de xam nga nga jur sa doom yar ko ba mu màgg mu war laa jëriñ ñu reyal la ko métti kay mënu koo wees métti moom mun passé loolu métti na trop waaye nu may def mënoo jur ba mënoo gis borom ba fayu boo mënoon jàkkaarloo ak moom sax am nga ñu la fayul ñu fayul la waaye doo ko jot gouvernement kii bi yoon moo siy teg loxo nooy def. da ngay jàpp si yàlla rek ah nooy def jàpp si yàlla rek. jafe-jafe dafa mel ni dafa bari lu muy am ci banlieue bi aussi. mu ne la man kay damaa xamul lan moo nekk si àdduna bi léegi. rey rey bis mi ne nga bi da ngay tiit bis mi bu ñu tegoon fii luwaa boo xam ne ku rey ñu rey la léegi rey bi jeex fi comme ni màkk di def ak yeneen dëkk yi bu ñu ko doon def léegi rey jeex waaye bis mi ne ñu rey nit lii am na tey bu subaa nga gisaat leneen bu subaa nga gisaal leneen xam nga loolu dafa metti nga jur sa doom ba commencé yaakaar si moom te man maa ngi nii jëm mag bëgg ku ma noppal ñu reyal la ko metti na te xam nga man léegi mag laa léegi xam benn boobu laa amoon xam nga ne dootuma amaat doom te eh ndax ku dem ba am 45 ans doom moom dootoo ko amaat te eh moo ngi noonu metti moom rek laa amoon si ñetti doom laa am waaye moom rek mooy góor moom rek la mooy góor 45 ans boo ko amee jeexal nga doom moom dootuma ko amati loolu metti na metti na trop tas nañ sama yaakaar bi tas nañ sama yaakaar bi tas na sama yaakaar naa lépp si loxo yàlla yàlla moom ma ko moyoon moom moo ko jëlaat bu yàlla doon tàggoo du ko yóbbu man mi lay yóbbu waaye mënu ma si dar wallaahi na de metti trop ma leen di delloo ñaar gouvernement bi war na see wax de li metti na de gouvernement bi war na see wax waaw ndax man li mu laa Mauritanie laa nekk di liggéey di daan sama doole lu ma am ma dimbale si sama yaay gis nga ñoo ngi nii suñu doole bariwul li may liggéey ak xale yi li ñuy liggéey si dimbalee sama yaay léegi maa ngi jëm mag yàgg yàgg may bàyyi liggéey bi waaw mu wallu ma ñu reyal ma ko nii metti na de metti na moom waaye teg naa lépp si loxo yàlla rek comme que yàlla moo ko indi woon moo ko jëlaat mënu ma si dara mu ngi di delloo njaar mm. metti na torop